asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nuyu nañ leen ziar leen jaajëfe leen bu baax a baax ànd bu rafet euh, bi ngeen ànd ak Waarwi TV waaru Cheikh Ahmed Bamba Khadimou Moustapha euh, ñi ba tey ci ndog yi ndog yi maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mouridina tey nag ñu ñëw fii ci euh, Daaru Xafoor dëkk bi nga xam ne mooy dëkku maam Saliou Fall rekki maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Baabul Mouridina bi ñëwee ci euh, penc bi ñu ngi fi ñu ngi nii nag ci penc mi di ngeen gis na nag eh, ambiance yi nga xam ne mooy am fii ci waa diwaanu Darou Khafor waaye ñaanal sëñ Touba sëriñ Mountakha euh, xalifa général des Mourides suñ borom yàggal ko fi lool ànd ko wér waaye noonu lañ koy ñaanale suñ Cheikh Jimbu faal mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Lambaye dina waaye ziar ki nga xam ne mooy borom penc mi tey muy sëriñ maam Cheikh Fall moom euh, di sët di xalifa euh, maam Salif Fall ci kaw suuf ñu koy ziar bu baax di ko ndokkeel ndokkeel baax a baax euh, mboolem njabootu maam Salif Fall gépp du commencé sëñ Bada rek ba si sëñ maam Cheikh ba si sëñ Sàkk ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar baax nag di leen ndokkeel kanam tuuti dinañ am yeneen i Euh, témoignage yi nga xam ne euh, moo waral li nga xam ne mooy ndogal maam Saliou fii ci Darou Khafor di ko di ko am nag samedi bu jot euh, ci ci ci ci weer wi incha allah rabi kon bu si kaname incha allah dina am yenn témoignage yi nga xam ne dinañ ko am dinañ ko ci njaboot gi waaye nag dinañ ko am ci taalibe yi. jërëjëf waar wi TV waar wi Cheikh Ahmed Bamba Khadim Moustapha ba tey ñu fii ci Darou Khafor ñu toog ñu taxaw ak sëñ Abdou Lahad mi nga xam ne mooy porte parole moo yor kàddu sëñ bi. kon sëñ Abdou Lahad ñu ngi leen nuyu ak Waarwi TV. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuhu. Euh, soxna si soxna Awa Touba ñu ngi lay nuyu bu baax te di la jaajëfal euh, di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mountakha Mbacké xalifa général des mourides suñ borom defal yàggal ko fi lool te defal ko wér ak njabootu Cheikhul Khadim gi noonu it la ñu koy ñaanal Serigne Cheikh Jëmm Fall mi fi xalifa général de borom yàggal ko fi moom it te ko wér ak mboolem njabootu di ko ñaanal suñu sëriñ bii ci biir di sëriñ Hassane Fall moodu maam xalifa maam Saliou Fall suñu borom yàggal ko fi lool di ko wér ak mboolem njabootu maam Saliou Fall ñu ngi leen koy ñaanal. léegi bu ñu bëggoon waaw ak de moom moom cosaan li yàgg na ca diggante Cheikhul Khadim la ak maam Cheikh Ibrahima Fall ca Njaareem kon loolu yaakaar naa yàgg na. mu doon loo xamante ni bii luñ fi fekk la muy muy cosaan lu dëgër nag loo xamante ni bii ah, ñun ñi nga xamante ni bii ñoom la ñuy tudd ñu tudd wooye di ñu ay Baay Faal maanaam farata la ci ñun joo xamante ni bii ni julli ak woor doo farata ci ci ci jullit bu nekk ñoo nit doon ay jullit di nag di ay murid saadix di ay Baay Faal it noonu la doon Baay Faal noonu la ko woo ndogu doone farata ci ñun nga xam ne ala kulli aalin weeru bu teroo rek faw dañ ko war a bàyyi dañ ko war a jàpp di ko def lu ñu jàppoon dañ ko war a bàyyi di ko def kon loolu maanaam farat la joo xamante ne bi kat ci diggante Seexul Xadim ak Cheikh Ibrahima Fall fa la bàyyeekoo waaw ñu di ko def fii ci Daaru Xafoor. léegi bu ñu bëggoon a xam maam Saliou Fall waaw weeru koor bi nag ni magam ju baax ja maam Cheikh Ibrahima Fall daan ko defee rek. daan togg fii da ko fii ci ko daan togg di ko yóbbul Seexul Xadim képp ku fi nekk Seexul Xadim rek. noonu nga xamante ne bii noon lañ ko daan def di ko yóbbul ku baax gi doomam yi nga xam ne bàyyi na leen fet noon lañ ko daan dundalee li tàmbalee ci sëñ Moussa Fall Saliou ba ci sëñ Dame Saliou Fall mi nga xam ne moom mu jot doon doomi Serigne Saliou noonu lañ ko daan toggee fii di ko yóbbul Cheikhul Khadim ku fi nekk Serigne Touba rek ñu di ko togg di ko fa waaw. ceeb nag lañ ko daan def waaye jamono day soppiku dem nañ ba ceeb bi xam nañ ni loolu euh, Cheikhul Khadim képp koo xamante ne bii ku fay dem la di ko yóbbul ay xéewal war naa dëppoo ak jamono war naa doon ñam yi nga xamante ni moom la ñu wooye ñamu Tuubaa nga xamante ni bii ndawal dong lay doon ak soos ak mu ngi waxee ak pomme de ak soble ak yi ca war a dem daal noonu lañ koy defee di ko yóbbul Seexul Xadiim ki fi nekk sëñ Tuubaa waaw. bu ñu bëggoon a xam xalifa beeg yooyu. waaw jukkooy bi xalifa bi daal. Hmm? xalifa maam Saliou Fall. waaw xalifa maam Saliou ñu koy Mam moom it mooy ki nga xamante ni bii tey moom la suñu borom dogal mu doon sët bi njëkk a toog jataayu maamam fii di sëñ Assane Mourou maam di ñaan mu yàgg fi loo tëwër ànd ak mbooleem rakkam yi ak doomam yeeg mbooleem seex Serigne Saliou yi ndax kat wax dëgg yàlla fonk nañ ko teg nañ ko jataayub Serigne Saliou xam na ne moo fi Serigne Saliou ndigal loo xamante ni bàyyi ko na ci sëriñ bi tàbbi ci ñoom kat daañu ko jafe sëriñ bi fii mu nekkit ndigalu seexul xadim rek moo ko fi bay di seex Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg tëwër moom rek la fi nekkal moom lay diglu ay ndigalam di moytu ay taram lépp lu mu ko digal daal loolee moom ma nga ca muy ndog yi di addi yi muy mboolem liggéey boo xamante ne bii daal jóge na ci kër Cheikhul Khadim tàbbi fii ci kër Sëñ Saliou Fall na muy tàbbee kër Cheikh Ibrahima rek noonu lañ koy ànd di ko jëfe xalifa bi moom loolu rek la fi nekk bëggul dara dencul dara soxlawul loolu ndigal loo xamante ne bii lu muy dégloo ci kër Cheikhul Khadim ba bu mu ñëwee rek mu daal di koy jëfe loolu rek la fi nekk ak mboolem njabootu Sëñ Saliou yëpp. léegi bu ngeen paree ci ndog yeeg ak yoon bi ngeen defal waaw waa yoon wi ni ñuy def ak ñoom waaw moom day xam nañ ne ab Baye foo nekk da war a am yar am ay tegin ndog yi bu ñu ko toogee ba mu baax def ko na nga xamante ne bi noonu la war am des na ko dugal ci ay oto ànd ak sikarullah baatub laa ilaha illallah moom la ñuy àndal ak moom ba yóbbu kër Seexul Xadim ci ab yar ak ay tegin duñu romb kenn tooñ ko moom daal dinañ tegu ci yoon wi ba arag fa loolu nag moom duñ ko yor ñun ah. ay jaasee ki kuur xam naa daal dinañ ànd ak ab yar duñu tooñ kenn duñu yàq oto jàmbur duñu daje kenn ci yoon yi def la naka sunu noonu ndax liggéey boobu bu fekkee da ngaa bëgg a jariñu da koy teg ci yoon siraatal mustaqim ca tooñ moom kenn santaane wu kon nag ci loolu rek ci la ñu tënk waaw sëriñ bi fi nekkit loolu leen digal sëriñ Mourou Anta mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Abdou mi nga xam ne ndog it moom la sëñ bi teg ci loxoom lay digle ñu di ko defee jëfe noonu. léegi ndog euh, euh, maanaam boole nag lim bi moom yemul fan ndax euh, ndogu yu njëkk yi juróom fukk la woon bii ci topp muy gaaw bi romb juróom ñaar fukk te it mën naa dem ba téeméer ba am romb moom noonu rek lañ koy defee yemul fenn ndax sëñ bi moom fii ndog yi maanaam muy jeex lu ñëw rek dañ ko ciy def kon moo tax lim bi duñ neex a takk waaw yemul fenn waaw waaw jërëjëf soxna Awa Touba ñi ngi leen sant yéen waa waar wi TV seen liggéey bi rafetlu nañ ko ndax yéen ku mat a ñaanal ngeen ku mat a jàpp ngeen ndax wax dëgg yàlla yéen a ngi yóbbu ci liggéey bi foo xamante ne bii kat tey buñ ko fa bëggoon a jàllale du sotti kon nag yéen ngi ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax di leen ñaanal jàmm ji sax dàkk barke jërë ngeen jëf. waaw waañ ñi comme ni ñu ko waxee rek waa ñi maanaam ñun ñoo yore liggéey bi waa ci ndigalal sëñ Mourou Anta Fall mi xalifa si Abdoulaye Fall Saliou moo yore war a wàññi boole man mii ak samay rek ñu yore wàññi di war a wàllu liggéey bi maanaam bu ñu xëyee li ñu def mooy bu ñu defaree li nga xam ne moo jëm ci wàllu ndawal bi seetli ko ci fukki cin yi ak ñett mooy fukki bu kër ak ñett. ñu jëm ci wàllu soble si ak diw bi ak pomme de ak leneen li ci des ba pare bu mu paree ba pare loolu it maanaam ñi nga xam ne ñoo yor ci ni ñoom it dañuy am ab wax ne da nga koy dolli mu jëm ci wàllu bi noonu daal noonu noonu noonu daal lay xëy di demee waaw. léegi waa ñu njabootu maam Saliou Fall kenn ku ne daa yor cin wala boog di ngeen a boole cin yi. maam kenn ku ne daa daa daa yor cin maanaam ni nga ko ni nga ko tëralee mooy ñi nga xam ne. ñoo njabootug maam Saliou ñoo ñoo yor ci maanaam ki nga xam ne moo yor sëppéer bi mooy bàjjen Soxna Fall Jëgg moom mooy yor sëppéer bi ku nekk waañ bi mooy Soxna Fat Sall moo jiite euh, waañ ku ci topp waaye ko si Muudu Saliou Fall Soxna Boussa Ndiaye tamit moo yore liggéey boobu ku ci toppaat waa si Muudu Maam Fall Soxna Léem Fall tamit moo yore liggéey boobu ku ci topp soxna waa kër Sëriñ Muudu Anta soxna Touré Ndiaye moom it moo yore loolu ku ci toppaat mooy waa kër Sëriñ Asana Awa Jaxate soxna Xadi Diaw moo yore liggéey ba ku ci toppaat waa ko sëñ Abdoulaye Fall Saliou sëñ mu sëñ sëñ soxna Adama Fall moo yore liggéey bi ku ci toppaat waa ko soxna sëñ Njande soxna Njande ku ci topp ku yore waañ mooy soxna Jee Fall ku ci toppaat waa ko sëñ Dame Fall Saliou ku yore waañ mooy soxna Ndey Mbodj ku ci toppaat waa waa ko sëñ Tay Bañang ku yore waañ mooy soxna Xadi Guèye ku ci toppaat mooy waa ko sëriñ Codé Fall soxna Fama Diang moo yore waañ waa ko sëriñ Daouda Ndiaye soxna soxna Bintu Ndiaye moo yore mooy moo yore waaj waa kër sëriñ Moussa Diam Mbeng waa Mbeng ku ko yore mooy soxna Caara Mbeng ak waa kër sëriñ ma seer loo soxna Yaasin Coon moom it moo moo jiite moo jiit liggéey bi noonu daal la nga koy noonu la nga koy maanaam li ciy dolli ko mooy sëñ bi dafa na maanaam pour muy teel lu mu gàtt gàtt daal 3 heures jëm jëm fekk lépp pare génn fi ñu jébbal ko liggéey bi bu ànd xam ne mooy suñu wudantu suñu xalifa nga xam moo yore liggéey bi ñu ànd ak moom dem Touba jébbal ko suñu Sidi Muxtaar ndax ndax waa ñu benn jafe-jafe xëccoo am na foola déet. déedéet benn jafe-jafe amul ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ndax maanaam ñoo bokk lu ñu bëgg daal ñëpp ñoo bokk liggéey dara ñuur la léegi liggéey suñu saali foo fi gis daal moom moom day day bëgg liggéey bu baax déedéet déedéet xëjoo amu fi maanaam xëjoo kenn ku ne la nga war a def xam ko boo egsee ci yow la nga war a def nga war a ñii rosi day rosi ñii ñii saa pompeteer saa pompeteer ñeen ñi def na kenn ku ne waa xam na la nga war a liggéey benn benn xëjoo amu ci waaw xëjoo moom amu ci sëñ bi Dakar ay waajuram mu waajuram mu góor soxna soxna soxna picc Fall maam Cheikh Ibra mooy waajuram waajuram mu jigéen moom da cee bete bete nday la ci ndayu ci baayu ci maam Saliou jur jur baayam maam Cheikh Ibrahima Fall jur jur yaayam muy jëwriñ sëñ sëñ sëñ Mourou Anta di suñ jëwriñ nu ñëpp man mi maay seen yaay soxna maam seen bu jaay laa tudd maay seen yaay maa ne ca kër ga maa fa nekkal seen maa leen fa nekka kon jëmm ji jaar naa sant bu baax te di ko ñaanal ci jëmmi maam Saliou Fall suñu borom yàlla yàggal ko fi te wéral ko guddal aw fanam saafara ay jàngoroom barke maam Saliou Fall ndax jëmm la joo xamante ne saytu na saytu na ay saytu na ay rakam ak i magam man de mu aw ma payam man man man maam say bi da aw ma payam man maa ngi koy de jëm maam Saliou ba tey ñu ngi fii ci Darou Khafor ñi si waañu euh, suñu bàjjen bàjjen Fall jëgg mi caatum euh, sëriñ euh, maam maam maam Saliou Fall di ñaan suñu borom yàggal ko lool ànd ko di ko ñaan suñu borom guddal fanam lool te wér ay cëram kon soxna si yaa ngi ci waañu asalaamaaleykum ansu billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim barkab sëriñ saali Fall ñoo ngi nuyu di ziar tey jéggalu nag ndax bu sëñ seexu naa toogee bàjjen ummi toog moom waruma wax waaye nag damay wax ci seen ndigal ñuy ñaanal sëriñ Ndaam Saaliwu yal na yàlla yokkir leeram te bàyyi ñoog barkeem di ñaanal sëñ Assane Modou maam mii fi nekk xalifa daara xafa yal na yàlla teg ci moom loxo ba li mu bëgg liggéeyal maamam mu liggéeyal ko waaye ñu ngi ñaanal bàjjen soxna Fall jëgg ngunda bintu maam Saaliwu yal ko fi yàlla bàyyi bàyyi ñu ci ginnaawam ñu yàgg koo liggéeyal ñun nag soxna si dañuy sant rek ndax dañ na mburi ndigal lii ñuy def lépp ndigal rek la ndigal rek ka ñu ko tax a def soxna Fall jëgg mooy caatum maam Saaliw ba sëñ Daam Fall toogee ci ay gi la ko def jëwriñ jox ko super bi ñu nekk ko yore ko ci ay sëñ Daam ba sëñ Daam ñibbi ca baayam sëñ Assane Modou maam toogit feddali la waajuram wa defoon kon nag ñun dañuy sant di ñaan di gërëm daaru nag man maa ci gën a tuuti maay seen yaay faal ñii toog ñëpp samay mag lañ waaye daal ñi ngi sant ñi ngi gërëm ñi ngi ñaan di ñaan lu ñu def ren yàlla nañu def déwén lu ko raw ndax ñun mënuñu amuñu lu ñu am rek sëñ Saaliw Faal waañ wi nag ñi ma ko bokkal ci kër gi lañ ndax waa kër maam da Njaaye fi ne waa kër Baay ma diine ka waa Mbasa seenum paataar waa kër Awa juuf soxna maam Diouf taalibe soxna jëgg bàjjen nday jóob ñun daal jëwriñ yi rek a fi ñi fi nekk ñëpp ci kër gi rek lañ nekk yéen ñii ñëw dinu taatan taataan di nu dëkkit yal na leen yàlla kàttanal dooleel leen ba seen lii ngeen di def yàlla kaweel ko yokk leen sàmm leen ci barkeb Serigne Saliou Fall jërëjëf ñoo ngi sant ñoo ngi ñaan wasalaam. ñi fii ci Darou Khafor ci waañu maam eh, sëñ Modou Fall Saliou kon soxna bu soo yaa nekk ci wàññi sëñ Modou Fall waaw maa fi nekk waaw uh-huh. waaw maa fi nekk waaw maa ngi ci ndogu uh-huh. man la sëñ bi jox cindi uh-huh. maak sama mbooloo mi ma àndal fas yéene ci liggéey sëñ Saliou Fall nag def ko nu baax di ci def suñu alal di ko yokk ba mu baax waaw kon da ngeen yokk moom ba mu baax luñ fi luñ fi joxe danañ fi joxe lu ko maak sama ñi ma àndal tañ nangu ko loolu di ñaan sëñ Saliou jox na lu ko ëpp fuñ toll waaw sant bu baax nag ñu ñaan yokk ba yëg ko maa ngi ñi ma ko àndal ñëpp waaw ndax xajjoo am amu fi dara amu fi lépp rek kenn ku ne danga ko bëgg de wacc sa morom waaw ndax lépp bëgg sëñ Saliou Seex Mourou Fall Saliou waaw di wéy ci ndigalam di liggéey lu nu indi yàlla nu jox lu bare bare lu nu ci mën a def kattanu yàlla ak yonent bi nag ñoo ngi koy ñaan di ñaan yokk ba yëg ko teewe déwén waaw ba tey ñu ngi ci waañu sëñ Modou Mame Fall soxna Lem ñu ngi leen nuyu di la ziar. leen di doole delloo ziar di leen ñaanal gudd fan ak wér ñun waa ko sëñ Modou Mame mooy ñooy na ci waañ man maay si njiit li Lem Fall maa ngi sant bu di ñaan xéewal ak yokk li xanaa maanaam man maay njiit rek gone yi ñoo ne ci waañ di togg ak a man nag maay seen njiit man lan jiital. léegi lu ñu lu ñu lu ñu manqué rek mën na lay laaj lu ñu lu ñu lu ñu soxla maa leen ko indil ci loolu ci lañ nekk noonu di leen ñaanal nag bu baax barke Sëñ Tuubaa. xanaa neex rek xumb rek te baax di ko ñaan rek mu ngi yokku. daaw daaw moom kenn kenn deful lii moom ndax daaw moom kufru fa betaxoon kenn màggalul ndoguñu ndog defuñu dara ren nag moom tubaar tubaarkalla macha allah yokkute am na lool yàlla na gën a yokk nag ñu jot taxaw baax. fas yéene yokk bu baax baax barke sëñ Saaliw addiya yaa ngi dikk ñu ngi ma jox bu baax a baax maa ngi koy delloowaat ci biir cin li lu ñu ma jox ma dugalaat ci biir cin li mu ngi dikk moom bu baax sëñ Saaliw Faal alamaan amul moom dañuy def rek ñëw rek ku ñëw uh, ndawal wala wala pomme lépp la ñuy dolli tey am nañ juróom juróom benn am nañ ko tey moom lañ juróom benn fukki ginaar am nañ ko tey waaw boole ndawal gi ñu am moom la ñuy yokk moom yokku na moom bu baax moom yokku na bu baax a baax a baax sëñ saali Fall taxaw na joon yokk ko bu baax te ñim ne bataleet doom yi ni bataleet ñoo ngi def nañ ci bu baax a baax ñoo ngi yokk bubaax baax taaliba yaa ngi góor nan jàmbaar lañu maa ngi leen di doolee ñaax di leen doolee gërëm ñu doolee góorgóorlu lu ñu man ren bu dee yàlla ñu mën lu ko ëpp ñu ngi leen di ñaan bu baax ci sëñ Saliou Fall ndax sëñ Saliou lañu fi liggéeyal moom dong moo fi ne kenn néew fi lu ñu def rek sëñ Saliou tax ko def ku toog it sëñ Saliou tax ku liggéey sëñ Saliou nga liggéeyal ñëpp sëñ Saliou lañ ci nekkal ñu ngi ñaan bu baax yokkute bu ren di naree ñaaw yàlla mel ni déwén barke sëñ Saliou Fall yàlla ko teewee na ngeen na ngeen bu naree ñaaw yàlla na mel ni ren ñoo ngi ñaan bu baax yéen it ñu taxawal di leen ñaanal bu baax yéen itam ba tey ñu ngi ci waañu maam Saliou Fall euh, soxna euh, Serigne Khoudia Mbengue mi nga xam ne ci Cheikh si la bokk soxna si ñoo ngi di la ziar. waaw ñoo ngi lay fay bu baax ñun de ñu ngi sant yàlla di sant yonente bi di sant maam Saliou Fall lii daal moom kontaan rek lañ ci def ñun waa kër maam Saliou Fall daal kontaan rek lañ def ñun daal ñu ngi leen di sant yàlla sant yonante bi baax a baax a baax te xam ne Baye Fall moom yoonu Baye Fall moom nii rek la mën a demee ni ñu ko yàlla digalee nii la ñu ko doxalee rek di sant yàlla bu baax nag di sant sëriñ sépp ñu yàgg fi te wér. Cilli eh, nan la demee noonu. Cilli. Hmm? Cilli Cilli de waa kër maam ba Mbengue moo ko moom dëkk Baaji waaye dañoo dañoo toppoon maam Saliou Fall rek ba mu jox ñu lii ndigal. suñ maam itam maam Saliou Fall la toppoon ba muy gën ba fii mu ne maam Saliou Fall rek la xam. ci li am na xëccoo wala amul xëccoo. amul xëccoo gone yi moom jàmm ak salaam rek wax dëgg yàlla gone yi moom ba ñu ba ñu ba ñu bañ leen joxee ci li ba fii mu ne maa dégg ñu xuloo mosu maa dégg ñu coowoo xanaa jàmm rek ak di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fi ta wér lu ma fu ma leen jaarloo fi la ñuy jaar fu ma leen doxloo fi la ñuy dox te xëy bu ñu ma ci genn wetet mënoon nañ maa xeeb bala ñu kii ma waaye ñu ko. waaw yokk bi kay moom indi waaw ah ñun kay ñun la ñu sëñ bi sason rek boo nagani moom ci la ñu wéyee dañuy indi ay diw di indi aw nag di indi lu ne gone it macha allah ay ginaar dañ koy jënd dañuy jënd yokk bi ba mu doy sëkk dañuy yokk daal ba bu ëllëgee dañuy wàcc fa des bi ba ëllëg ñu yokkaat waaye dara manqué maa ngi leen di ñaanal nag seen taxawaay bi yàlla yàggal leen fi te wéral di ñaan ñëpp nag yàgg fi te wér fii ñu ngi fii ci waañu sañ Modou Anta Fall di ñaan suñ borom euh, yokki leer bu baax yaata xéwalam jaboot gi ñu fi suñ borom teg ci loxo kon soxna si naa naa ah, ngi fi situation ndogu yi ci ci di ñaan yor cilli waaw ñoo yor cilli waaw cilli nan la demee fii cilli cilli sëñ di liggéey liggéey sëñ Modou ñaan sëñ Assane Fall yàgg fi lool tamit yàlla yàggal ko fi lool fan yu gudd ak wér ñu ngi ñaan jàmm nag ak wér waaw. yokk bi nan la demee. yokk bi yokk moom dañuy dañuy def dinañ jënd ginaar. jënd pomme de yokk ak diw. ak diw di yokk waaw. ñu ko yokk taalibe te di la fay nuyoo di sant rek sant borom daaru maam Saliou mu nu may lii man man koo liggéeyal di sant maam des sunu sëriñ bi nga xam ni moo toppoon ci maam saaliw man man koo liggéeyal ndax ndogu yi kat ndogu yi moom ñoo ngi ciy sant bu baax a baax a baax li ci doolee sant maam Saliou ndax dëgëral nañu jàppale nañu ndax bu nu xëyee di togg si ndog daal kenn ku ne maam Saliou dina la jox loo mën a def ci sa cin ba ñu dikkee tubaarkàlla macha allah ñu koy sant te fas yéenee koo liggéeyal di sant sëñ Assane xalifa maam maam Saliou bii yal na fi yàgg te wér di sant xalifa yi topp ci moom ñëpp ñëpp mu ngi ñu ngi leen di sant di leen siyaare. ndax cin yi am amul xëccoo ndax man sama cin de man amul xëccoo ndax man sama cin li tax amul xëccoo mooy man sama cin ku ma waddalal ginaar di nga ma fay 1000 francs ku ma waddalal pomme terre di nga ma fay. ku ma fay 500. Ah. ku tardé dinaa la alamaan 1000 francs ba tax na kenn du tardé suñ bula bi kenn du tardé. macha allah ñuy sant nag maam Saliou bu baax a baax. di ko ñaanal waa ku am ngant moom ku dend ak buy ñëw rek. la nga xam ne nii rek moom lan sartoog yow rek dina dikk. jërëjëf ñu ngi leen di sant yéen itam di leen ñaanal ci dooley maam Saliou maam Codé seen liggéey bi yal na kawe ci darajay Xaadim Rasuul barke maam Sera Fall murid bu mag bi mi nga xam ne moo xàll lépp ba lépp am yal na leen yàlla jàppale te leen musal leen ci cat. te gi teggi leen jërëjëf waaw ñoo ngi fii ci waañu Cheikh Abdou Fall moom maam Saliou Fall di ñaan yàlla ñëwoon nañ fi daaw jéeg ñëw fi daaw ñëwaat fi ren ñaan yàlla nag di teewee di ko teewee ay déwéni déwén fii mooy waañu Cheikh Abdou Fall waaw soxna yi nga fi fekk ay yaay Fall lañu ñu ngi fi rek di fas yéene liggéeyal maam saaliw ak sëñ Touba ak Cheikh Ibra waa di ñaan yàlla ah lépp loo xamante ne lii def nañ ko fi rek yàlla nañu ko maam Saliou ak sëñ ci nii ni mu demee noonu. ci nii ni mooy euh, sëñ Modou Anta Fall. mooy taawu sëñ Abdou Fall moom moom moo jiite ci lii mooy mag waaw ànd koog ay rakkam waaw donga yi ñoo nekk ne nekk ci liggéey bi soxna yaa ngi ni nekk ci waar wi waaw. yokk am na wala allah. ndax ku xool waañ bi ak nii ñii toogee ak nii ñuy liggéeyee nga xam ne yokku am na waaw ndax boo yokku amulee benn cin lañ daan taal léegi ñu ngi ci ñaar ba ñett waaw kon xam nga ne yokku am na bañ xëyeeg léegi rek lu toll ci ñetti saaku pompiteer wala eh, ñaari saaku ba ñetti saaku soble daggat nañ ko fi ci subaak léegi te bu njëkk ba daaw ñu daggat sax saaku kon xam nga ne yokkute am na ñuy ñaan yàlla nag yokku bi gën a jëm kanam waa diggante daaw ak ren daaw am na daf ñoo fekk ñu nekk ci confinement bi nekk ci corona bi mais terewul daaw doon nañu togg waaw ndax toog fi waaye fañ doon toggee dafa mel ne li ñuy def fii rek lañ daan def foofu ñoo ngi sant Cheikh Abdou bu baax nag di sant njabootam te xam ne njabootam gi mu fi bàyyi ñëpp benn lañu soxna yi tamit ñëpp danoo ànd ak taalibe yi waaw bu ñu ñëwee ci waañ bi kaf ree liggéey pompiteer baa ngi nii soble baa ngi ni waaye kenn du tuur lu fi waaye waddal bu soobee yàlla ak yonente bi danga nga koy fay waa dinga nga fay 2000 francs ah, waaw ah, dinañ togg ba pare te duñ ko ñam te ko ñam kenn du waddal kenn du waddal kenn du ñam waaw soxna si ngay gis soxna Ndey Ami Fall la tudd ci njabootu euh, Cheikh Abdou Fall la bokk waaw kon nag macha allah tabaarkalla dañuy ñaan mu gën a yokku rek mu gën a yokk rek ñu gën a yokk ba yëg ko di fas yéene di liggéeyal maam Saliou rek nangoo doon ay yaay faal rek waaw ak ay baay faal waaw mu ngi noonu ca kaw ci kanam rek ci lu baax waaw doori Cheikh Abdou Fall yi law ba Baye Abdou Ndakaaru yokkute rek chaque année ci barke borom Touba man gëwuma kenn ku dul Baye Abdou Ndakaaru gëwuma kenn ku dul waa këram yi fu ma dem tamit ñoom laay ñoom laay xool te ñoom laa fas yéene àndal yal na ko yàlla ak maam Saliou Fall ak sama sang bu ba muy muy toll ñaar fukki mbana ak juróom yoo xam ne waa kër Cheikh Abdou ñoo ko fiy xëy di taal ci barke maam Saliou Fall man lii laa ñaan man si bis bii waaw yàlla na fi njaboot yëpp yàgg ci barke maam Serap Fall. kon soxna si fi di sant yàlla. Uh-huh. maam Saliou Fall borom Darou Khafour. Uh-huh. di sant Cheikh Bassirou Fall ak suñu Assane Awa Diakhat. Uh-huh. mu nu boole ci waa kër maam Saliou Fall. ñun Baye Fall moom jëf rek lañ xam ndax Cheikh Ibrahima li may am lépp jëf ko ko may kon ñun dañuy jëf rek. waa kër suñu Basiru Faal ak ñooy weer balaa yi jëf rek lañ xam na jëf rek wax moom mayewu dara yoonu Cheikh Ibrahima moom jëf rek moo fi maye dara waaye moom loolu jëf rek mayewu fi dara. léegi ci li nu mu demee noonu situation ci li. ci li maanaam di yokku rek sun sun sun suñ sëñ bi toggaloo ndog yi. ñu dind suñ suñ ñaq ak suñ doole yokku ci ba mu baax waaw fa yéene liggéeyal maam Saliou Fall ak Cheikh Ibra rek bi ku tuur da ngay fay moom ndawal geeg yooyu ku ñam ku ñam da ngay fay ku tuur da ngay fay ñaan ngay fay ku ñam da fay ku tuur da fay Baye Fall moom daraam yóbbu ndax boo coppatee ñam rek aw des nga yóbbu te kër Sëñ Tuubaa dañ fa dem di yóbbu aw des waaw léegi diggante daaw ak ren bi yokku rek ndax daaw xam affaire yi taxoon logo yi kenn ku ne sa kër nga ko doon taal di ko defar ba mu sell nga di ko yóbbu ren nag moom kër maam Salif Fall di ah, nag dañoo féete kii kër sëñ Assane Awa Jaxate Bas di suñu di ci kër gi ah lii moom li ko soxna si waxee rek noonu la. yoonu Baye Fall moom jëf rek lañ mën a ñu wax daanaka soo gisee nii sax rek bu xasee jóg moom amatuñu leneen soxla lu dul daan loolu waaw loolu rek mooy suñu yitte di ko ànd ak mbokk taalibe yi di ko ànd ak euh, waa kër maam Saliou Fall yëpp gis nga ko fa tourné da nga gis euh, déguisement yi déguisement bu dafa am kër gu ko kër gu ko kër gu ko présenté waaye fii waa kër suñu Bas waa kër suñu Assane Awa Jaxate ñoo sor vertébrale ñun loolu daanaka mooy suñu symbole ci kër sëñ Xidi waaw di sant rek jërëjëf. sëñ Basiru Wàll yàgg Bas sëñ Bas Assane Awa Jaxate yàgg fi lool te wér ñu yàgg ànd ak moom ak euh, rakkam ji tedd ji Serigne Fallou Fall. soxna Dial Fall soxna Dial Fall di sant ñëpp ñëpp mbokk taalibe yëpp. waaw di leen gërëm waaw ak mbokk taalibe yi nekk ci waañ week ñoom ñëpp ñu leen sant di leen gërëm góor ñeeg jigéen ñi jërëjëf fii ci Daaru Xafa ci waañu maam Daawda Njaay bokk ci seex yi maam Saliou Fall euh, kon soxna si ñu ngi leen nuyu ak sa waañ ah, waaw aca bisimilah waaw bisimilah sa noonu waañ ni maa ngi sant yàlla ak yite ba Sëriñ Tuubaa ak Seex Faal di julli ci yonent bi di sant sama ndey ak sama di sant yàlla ak yonent bi ak maam Saliou Fall ak maam Daouda Ndiaye mais gàddaay pi sañu ko topp si maam Saliou Fall lu nu am ci kër maam Saliou Fall sama maam ko liggéey naa ngi ñaan ci yàlla Sëñ Tuubaa yal na yaxam sedd di sant Cheikh asan Fall di ko gërëm di ko ñaanal Fall yal na taxawaayam yàgg yal na yeggale naa li na fa yàgg te lu mu gën a yàgg mu gën a neex ñu nag nooy taalibe ñëpp nooy waa sañ pir saño xóor ñooy si ne ñooy ñooy tool bi nooy ñag ba yàlla ba ñag ba gaaw a dara jaay maam Gunda Saa bi nga fa lépp lu fa waay sonn sonn yàlla na ko yàlla fay. ki ñu taxawal suñu waajur la Baye Mor ñu koy ziar bu baax di ko ndokkeel ndokkeel baax a baax euh, sëñ Gunda euh, mi nga xam ne sët la ci biir kër gi euh, muy doomi maam Dieye Fall di ko ñaan suñ borom yokk moom maam Dieye taaf suñu ci kon Baye Mor dinaa mel ne yaa yor wàllu matt yeeg yooyu nu fa demee noonu. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim xalifa général ku lu murit di ko siyaare ak njaboot ko suñu kanam lu mu bëgg liggéeyal maam Serigne Touba ma liggéeyal ko ba def lu kawe lu loo sëñ Cheikh Jëmb Fall ak njabootu maam Serigne Fall ko ñaanal moom mu yàgg fi lool bëgg liggéeyal liggéey ko ba liggéey kawe njortam ànd ko te ñu ànd koog moom di nuyu nag xalifa maam Saliou Fall ak njabootu maam Saliou Fall gépp bàyyiwuñ kenn di ko moom it liggéey bii mu yàgg koo liggéey te ñu ànd koog moom te ñaan day ci ngërëm maam Cheikh Rahma Fall maam Saliou Fall seen sang ba waaw di den nuyu yéen waa rajo bi waaw waar wi ngi leen di nuyu lu bëri loolu leen siyaare di ñaan suñu borom dolli leen kattan ba fu ngeen bëgg a ngeen àgg fa barke Serigne Touba barke maam Saliou Fall di nuyu nag mbooleem taalibe yi ak mbooleem sama mboromi dongo yi leen saare di ñaan suñu borom dolli nu dimbale ba liggéey bi nun ko bëggee rek ñu defe ko nu kawe suñu jot te daj ci ak ngeen maam Saliou Fall waaw man nag matt mi lañ ma sase matt mi ñuy togg ndogu daal moom at mu jot man lañ ko sase maa ngi ciy soññ sama bopp nag di ci soññ sama morom yi dongo yi nga xam ne ñoom laa ko àndal waaw di leen sant nag bu baax a baax a baax di leen gërëm di nuyu mbooleem rajo yi fi teew ñëpp ñu ngi leen di la saare di leen nuyu yow soxna awoon ñu ngi leen nuyu ba lool de saare di sant bu baax a baax a baax di gërëm matt yi mi nag ci àll bi lañ ko jëlee ndax mi ñuy toggee nii ñu ko jëlee ci dëkk bu ñuy wax euh, Daaru Diop ci gannaaw Xelkom fi lañ jëlee matt mi ñuy toggee nii fi lañ ko jëlee waaw ak fu mu mën a am rek ñu fas na yéene daal boo feeg sunu wuroo ngi nooyee daal fas yéene di ko def waaw fas yéene daal dara du ci manqué incha allah di ñaan day ci ngërëm maam Salif waaw sama mbokki dongo yi nga ci àndal nag waaw sama morom it taalibe yi sama mbokki dongo yi nga xam ne ñoo xam ne ñu ngi ci jàpp baax a baax nag ñu ma ci jàppale bu baax waaw ak mbokki dongo yi ak mbokki taalibe yi waaw ñu ngi si sant bu baax a baax di ñaan sunu borom it dolli leen kattan dolli leen ay xéwal di ci sant bu baax a baax a baax sama xarit nag bu ñuy wax Makhtar Dieng ak xaritam bu ñuy wax Mbaye Touré ndax camion yi fi indi at mu jot moo ma ko jox ndogalu jot dana ma jox camion bu ma soxlaa ñaar dana ma ko jox bu ma soxlaa benn dana ma ko jox maa ñaan moom itam sun borom déedéet amuñu benn jafe-jafe nag moom amuñu benn jafe-jafe benn jafe xanaa di ñaan rek yàgg koo man te ñaan day ci ma maam Saliou Fall ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen a soxna si noo sant yàlla bu wér kay. waañ woo nekk nii. ci waañu soxna Aminata Dieng. waaw soxna Aminata Dieng mooy waajuru euh, sëñ Adama Fall mooy waajuru Baye Cheikh Thiara Fall mooy waajuru sëñ Abdourahim Fall ñoom ñett lañ. ñoom ñett lañ waaw. léegi ci euh, léegi ak situation kil ñi ah, ah, ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla sant yàlla bu baax lépp jàppandi na wax dëgg yàlla. yokk am na yokk am na moom macha allah waaw yokk moom am na moom macha allah. wax doo jël moom da ngay fay moom ah, waaw da ngay fay moom dan lay amaan daal moom waaye dinañ ci góorgóorlu bu baax a baax ba dara du tuur incha allah waaw ñu ngi koy def moom ñu ngi yore eau de javel dëgg yàlla ñu ngi ñu ngi jël matuwaay daal waaw luñ mañ ñu ko ciy def. ndaxte ndogu jëm ci Serigne Touba jóge ci maam Cheikh Ibrahima Fall rawatina rakkam maam Saliou Fall dafa war a sell. a sell moom dafa war a sell ah. moo tax luñ mën ñu ngi ko ciy def ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax. ñu ngi ci góorgóorlu bu baax. jërëjëf waa kay jaajëf. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci Seydina Mohamed sangu sang yi di sant nag maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridina di ca teg rakkam ja Cheikh Saliou Fall borom daaru Xafoor Rahim bii ñu nekk nii. di sant Serigne Assane Fall mi nga xamante ni moo fi nekk tey ji xalifab Serigne eh, Saliou faal di sant tamit suñu jëwriñ ñun sëñ Fallou Fall nga xamante ni mooy xalifab Serigne Dame Saliou Fall ñëw fii ci cinul Serigne Dame Saliou Fall di ñu laaj. ma taxaw sama mag ji nga xam ne mooy suñu xalifa bu jigéen mooy sama taawu baay sëñ daam Saliou Fall ñoo ngi sant bu baax a baax di sant sëñ Assane ko ñaanal mu yàgg fi te wér ñu ngi sant tamit taalibe yi ndax ab sëriñ lu man rek taalibe ba la sant nañ leen bu baax a baax di leen gërëm bu ñu yëkkatee suñu kàddu bala ñu koo daaneel lu ñu wax lu nekk ñu def ko lu ñu santaane ñu def ko ñoo ngi sant bu baax a baax tey ñaan ñu togg ko fi ay téeméeri ndogu ndogu ndogu sëñ Assane Fall jiite ñu ko ñu yàgg ci ginnaawam lool ci barke maam Saliou Fall ñi ngi sant taalibe yëpp nag di gërëm ñëpp di ñaanal nag Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wer ñu yàgg yoonu ndogu yi yàgg ko ko yiti foofee mu nekk ca Touba ñi ngi leen di sant yéen tam yéen waa télévision bi yal na seen télé bi yokku ci barke maam Saliou Fall borom Daaru Xafoor dëkkam bii ngeen ñëw ku fi ñëw loo fi sàkk suñ borom dina la ko fajal mooy daaru xafoorun rahimun du ngeen fi ñaan lu nekk rek a nangu ñoo ngi ñaan ak seen télé bi yokku ci barke maam Saliou Fall di ñaanal donga yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi sant alhamdulilah rabbil alamina maa ngi nuyoo bu baax a baax di leen delloo seen wàccuwaay yëpp ah, gannaaw ba ñu sante seen teewaay nag ci suñu waañu fii waañu Massayer Birgo la waañu Massayer Lo ah bis bi nag ci jël comme tegtal muy loo xam ne lii lu am solo la ci taalibe mooy cër bii ñu ñu sedd ñu war waajal ndogu war ko yóbbu ci suñuy sëriñ suñu xalifa jamono muy sëñ munta Mbàkke a ah, ñu nar ko séddale mbokki taalibe yi loolu liggéey bu mucc ayib la loolu moom ku mu doyul ci taalibe wax dëgg yàlla ak yoon ñuy sant bu baax. yokk bi gi. yokk wala. dañuy yokk dañuy yokk dañuy yokk saa sune ne ah ñuy ñaan yàlla sunu borom nag mu yóbbuñ ci. jeexital ba ba ca ñeenteelu waañ ba ah saa sune ne itamit rek liñ naan yoon wi amul tànku gannaaw tànku kanam rek la am ñu fas yéene rekk ah li nga xam ne moom la ñu baaxoo jël suñu ñàq màjjaal ndax loolu day saafara ci yoon wi màjjaal def ci ba mu baax rek lépp rek eh, xorom soxlawuñ ko cee ñam ñamuñu ci dara ñamuñu ci dara dañuy def ba mu baax rek ñu. est-ce que dina dina danañu délégué kenn koo xam ni moom mooy ñam mais maanaam mboolem seen bi duñu ko ñam. mais nag dana am koo xam ne kii moom mooy xool waaw mais bu paree këpp lañ koy def yóbbu kenn du ci mbarkeelu kenn du ci mos dara waaw daal moom am na ci. ñuy sant nag bu baax a baax a baax cër bi nga xam ne bii yàlla def na tase na ñoo moom fii tase lañu la ñuy mën a wax ndax euh, kilifa yi ñooñu ko liggéeyal maanaam ku mel na Baye Salilou ku mel na Alaaji Mbàkke Lo ku mel na sax seeni maam Masayer Ah, ñoo ñu waajalal faqal ñu ba tey ñu ñëw am bii cër ci daaru xafoor baytit bee nga xam ne béré bu ñaan la macha allah ku fi jaar sa ajo faju bâtiment bii mu janoon ñoo ko cëre cëralee waa Looyeen kon loolu day cër wax dëgg yàlla ak yonent boo xam ne rëy na ci ñun lool rëy na ci ñun lool ñu ngi sant bu baax a baax a baax yàlla na yàlla sunu borom dëgëral suñu imaan yokk suñu taalibe ca dëgëral suñu pas-pas bu baax a baax a baax. ba tey ñu ngi waañu maam Saliou Fall ci waañu sëñ Taïba Niang soxna si noo maa ngi sant Cheikh Ibra bu baax. waañu ak nu mu demee noonu. waañu sëñ Taïba wi day tubaarkàlla macha allah ñu ngi wax onsu billaahi mina seytaani rajim julli ci yonent bi sant sangu sang yi muy Seydina Mohamed sant Serigne Touba sant Cheikh Ibra ak maam Saliou Fall mi nu wanaleeg Serigne Taïba. fa tubaarakàllaa ñooy jëwrini maam Saliou Serigne Taïba moom ku nekk dégg na ne mooy jëwrini maam Saliou mu jël léppam nag tubaarakàlla macha allah bàyyee ko jël léppam jox ko jox ko njabootam jox ko kër gi. ñu ñëwoon tey ji Daaru Xafoor fa tubaarakàllaa ñeenteelu ndogu maam Saliou ñuy sant nag sëriñ Touba di sant Cheikh bu baax di sant Serigne maam Saliou Fall nekk ci waañ wi nag góor jigéen mag ndaw. ñëpp futteeku rek ndax Cheikh Ibra ak maam Salim Serigne Taïba it nag amatutoon noppalukaay amatutoon nooflaay heure su maam Salim santaane rekk balaa mooy xolama sedd rek la mu santaane ak la mu digle rek loola daanu ñu di ko sant nag di sant Serigne Cheikh Fatou Barakalla ak ay rakkam yi mu àndal ak i doomam ak soxna Ndeye Gueye mii nga xam te ne nii tubaarkalla mooy sunu jëwriñ ci kër sëñ tay ba mooy sunu jëwriñ ci kër maam Saliou Fall bala ñoo def dara soxna ndey la laaj bala noox dara soxna ndey la laaj moom it mu wëlbatikuwaat nag delloowaat ma ndigal li delloowaat ma jëwriñ ji muy soxna su gaawaan mbay Baye Fall Baye Fallu Serigne Cheikh ñam ah, léegi waa ñu ni noonu euh, cin yeeg yooyu. cin yeeg yooyu nag mat fa tubaarakàlla kër maam Saliou moo nuy njëkk a jox première ñu ñu togg ñu ñu jëlaat sunu yokku. fa tubaarakàllaa ñu rey nag jënd suñuy pombiteer jënd suñuy soble waaw dañuy rey nag tey rey nañ nag rey def nañ juróom benn fukki ginaar doolee ko jënd ñeenti saakoy soble ñeenti te bokkut ak li nu jox jënd ñeenti saakoy soble ñeenti saakoy pombiteer ak sunu ndugg fa tubaarakàlla ak sunu ceebu jën yu mag pour toggal bëggal ñi nga xam ne nii Cheikh Ibra la ñuy bége te wóorunu nu dolliwaat ko ci yokk bi yokkaat ko rek taarixal ko ba mu rafet rek ndax lépp ci bëgg maam Sall yéen ñi nga xam ne da ngeen a woor da ngeen yóbbaale ndogu dinañ diisal seen i poos ndax fa tubaarakàlla bëgg goo gisee nga koy fay ngeen dagg seeni tey te yëpp ñëw ngir Cheikh Ibra ak maam Saliou maam Saliou am na fay Cheikh am na fay Serigne tay it am na fay ndax sëriñ Serigne Taïba fa tubaarakalla mooy buntu yoonu maam Saliou lu fi waaye dagaan lu ne mbaa nga soxla ko fi boo jaayante rek fa tubaarakalla loolu dana la ci fekk jërëjëf. ñu ngi fii ci Darou Khafor ngir ñu mën a xam lépp Darou Khafor dañuy jox rek sëñ Bada mu suñu maam Baye ndaam Fall di ñaan Baye Ndam suñu borom yokki leeram bu baax nag yaata xéwala njaboot gi fi bàyyi suñ borom teg ci ñoom loxo sëñ euh, Bada ñu ngi lay nuyu di si ak waar ok salaamaaleykum soxna Awa awatuba ñoo ngi lay nuyu di la siyaare di leen dalal jàmm yéen waa euh, waar wi TV di bëgg ci seen teewaay ci kër Serigne Saliou Fall gi nga xam da ngeen fee ñëw ngir yaatal liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu Cheikh Ibrahima Fall di buub maam Saliou te jóge woon ndigal li ci Serigne Touba. léegi nga ñu bëggoon a xam ndigal dëgg kañ la sos woon. waaw ndigalul ndogu ci taarix li nga xam ne moom lañ ci gëstu mën nañoo wax ne mi ngi tàmbalee ci 1916 ndax. Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba Khadimul Moustapha bi nga xamee ni ñëw na njaareem ci 1912 nekk ci këram gu tedd googu di Buqatul Mubarak booba su maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babul Mouridina mi ngi woon Thiès waaye nag Cheikh Ibrahima Fall jàpp na ni Serigne Touba lépp loo xam ni daf ko aajowoo ci moom la war a bàyyi ko loolu nag sababoon amut bis bu yàlla sàkk bu dul ne Cheikh Ibrahima Fall dina toggee ay añ ca Thiès teg ko ci saxaar gu ñuy wax régalier mu andi ko njaareem ñu yann ko yót ko sëñ Bamba ci këram gi ci Bokhatul Moubarak loolu diggante 12 13 14 15 ba 1916 16 nag bi maam Cheikh Rafal ñibbisee ci njaareem am bis boo xam ni ku baax ki Seexul Xaddim radiyallahu taala anhu daf koo woolu mu ñëw wuy si ko ànd ak ñenn ci taalibe yi mën nañ caa tudd sëñ Massamba Ndiaye waqi ak sëriñ Yaaram Mbay bi ñu ñëwee wax nañ ni ku baax ki ne ko Ibra suba damay am aw gan te bëgg nga toggal leen ay reer kon daanako yor kullu yow min ay añ yoo xam ne da ko ko daan toggal di ko ko andil di ko teg ci saxaar jële ko Cees ba njaarim ay añ keroog nag bi ko ku baax ki wooloo ba mu ñëw dane ko suba damaa bëgg nga toggal ma ay reer kon bokkut ak añ wax nañ ne bi mu ko ñaanalee ba mu génn ba ñëw ba jéggi bi jëm kër Cheikh ci këram gi ci makkatal mu karram ñu koy wax makka loy lay wax nañ ci la sunu maam Cheikh Ibra Fall waxe ne Massamba Ndiaye wax ana lan la ko baax ki wax nee na sëñ Masamba Ndiaye wax wax sëñ Yaaram Mbay ne ko ah leeralal kon li ku baax ki wax mu ne ko ku baax ki kat faal dani bu subaa day amu gan bëgg nga toggal leen ay reer nee na bi mu ko waxee loolu Saman Seera Faal daal di wax ne bindal ma ci suuf tànk nee na mu bind taa tombe teg ci keef mu ne ko adat ko mu ne ko taa tombe gi ñeenti téeméer la keef gi di ñaar fukk kon loolu di ñeenti téeméer ak ñaar fukk muy 420 mu ne ko ah yaaram wàññi ko bindalaat ma tànk mu dindi taa tombe ga daal di bind taati dara muy taa Touba gii teg ci keef mu ne ko adat ko mu ne ko ñaar fukk la ak juróom-ñeent fekk bis booba ñaar fan ak juróom-ñeent la woon ci weeru saxbaan mu ne ko ku baax ki sëñ Bamba damay xamal ne sama sang ba tey la weer wi di feeñ suba la ramadaan di dugg daa wax ni kon naa ko toggali ndogu daan ne waaye yaaram maa ngi leen xamal ne ndog yi ma sëñ Bambay toggaloo de ku ma ci defal lu toll ni tànk dinaa la teqalik fitna yi àdduna ak àllaaxira yëmut ci joxeb xaalis defal moom toog di xool li laaj soble ak dëgg booba rek xam mat ak lépp ci defal la bokk mhm. lii nag ñu ngi ko toxale ci suñu magum taalibe moo xam ni ab gëstoom ci yoonu sunu maam Cheikh Rafal bi yaatu na lool te leer na lool te jot na muy Baye Moustapha Seck mhm. moom sëñ Amdi Khady Fall moom Baye Serif Assane Fall mhm. loolu ci moom la ñu jëlee lii kon ndogu foofu la cosaanoo booba nag Serigne Saliou Fall léppam dafa tàbbi ci biir Cheikh Ibra lu ñu mas nekk tam ñoo waaw booba liggéey bi benn liggéey bi la ndax Cheikh Ibra Fall ak sëñ Saliou moom seen lépp day lenn ñoo bokk seen ñaari waajur waaye ñoo bokk seen pas-pas bu dëgër boobee ñu ànde woon ak Serigne Touba Baye Fall gi moom dafa dem ba barkeel rek lenn lu ne ñu taal ko ci buntu waaye mooy benn liggéey bi foofi dugg nag jàppal ne la nga fa fekk liggéeyub Cheikh Ibra Fall la rek kon ñi ngi sant ak a gërëm tey ñaan sunu maam Cheikh Ibra Fall moomee ak rakkam ji Serigne Saliou yal na sunu borom dolli ci ñoom ay ngërëm ak i liggéey bi moom yokk na lool lépp nag ay cant gis nga soxna yaa ngi nii lu nu man ak lu nu mun lépp ñu ngi koy def ci liggéey waaw lii amoon na fi naka jekk dañ ko daan def dale ba nga xamee ni Serigne Saliou bàyyi koo na fi tam sëñ Modou Saliou moo ko njëkk a wuutoog sëñ Modou maam noonu la liggéey bi doxe xañ na nag nii ñu ko jàppe di ko def ci gaaw bu jot loolu ñu ngi ko tàmbalee ci Serigne Dame Abdourahmane Saliou mi nga xam ne moo nekkoon juróomeelu xalifab Serigne Saliou Fall loolu gis nañ ci kéemtaan goo xam ne ndax Serigne Touba radiyallahu taala anhu gis nañ ne juróomi doomam ñoo ko wutu ci xilaafa muy Cheikh Modou Moustapha Karim Serigne Fallou Cheikh Abdoul Ahad Serigne Abdou Khadir ak Cheikh Saliou gis nañ tamit sunu maam Cheikh Ibra juróomi doomam ko wutu ci xilaafa muy sëñ Modou Moustapha Fall Cheikh Mortala Fall Serigne Ablaye Fall Ndar Baye Serigne Assane ak Serigne Abdou Sakkour Fall sët ya soog a tàmbali maam Saliou Fall miit juróomi doomam ko wutu ci xilaafa muy sëñ Modou Saliou Fall sëñ Modou Maam Fall sëñ Assane Awa Jaxate Fall sëñ Abdoulahi Fall Ndakaaru Baye Ndam Saliou Abdourahmane mooy ki ci mujjoon bi mu fi bàyyi ko la fi sëtam bii toog di sëriñ Assane mi nga xam ne tey moo toogee jotaay bi di ki njëkk a wuutu Maam Saliou ci ab sët ànd ko nag ak rakkam yi mboolem bunt kër doomi sëriñ Saliou ak seex si ñëpp ngi ci biir liggéey bi kenn desut ñi sant Fall seex yeeg ñëpp waa kër sëñ Tayba Ñang sëñ Codé Fall waa Loyeen waa Badji waa Ndiireen kenn desut ñëpp ngi ku taxaw temm ci biir liggéey bii te liggéey bi nag di liggéey boo xam ne bu mat a fonk la ndax waxam nañ ne Baye Naar faal nee na ma sa maam Saliou de bi mu ko daan def àggoon na sax di wax ne soxna yi ku ci sétut sax nga jéggal ma daana ko def xañ na nag booba liggéey ba moo tolloon noonu waaye yoon moom fi ne àttan na lépp waaw kon noo ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba barke maam Cheikh Ibrahima maam Saliou yàlla nañu sunu borom dolli tawféex joo xam ne ndigalul Serigne Touba lii saa su ñëwee ñu gën koo jekku te sax ci dàkk te di ko liggéeyal ku baax xam nga jotaay bi jotaay bi ni mu demee ne xam nga te jotaay bi ris la sëriñ Souhaïbou Fall moom sëñ Modou Aminta Fall moom sëñ Modou Moustapha Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baab mu dina moo jógee Mbàkke ñëw fii Daaru Xafoor ngir ziare li nga xam moom lañ bokk muy euh, kër maam Sali ak kër maam la moo tax jotaay bi wala am kon euh, sëñ bi euh, ñu ngi lay nuyu di leen di leen dokkeel ak accueil ki nga xam moom ñuy li nga xam mooy dëkk bu sell bi Daaru Xafoor kon sëñ bi ñu ngi leen di di la ziyaara sëñ Omar Bayo ok bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima di di leen ziyaare soxna Awa ci turu Cheikh Modou Fadal moom sëñ Dame Abdourahmane nga xam ne nii mooy jëwriñu sunu kër di ñaanal sëñ Assane mii xalifaam mu yàgg fi loolu téwér ndax mooy sëñ Saliou Fall mu mel ni lii lépp day dugg rek ci liggéey bi Cheikh Ibra mu Baabul Muridiina daan def te jëloon jëlewoon ndigal ji ci Cheikhuna Cheikhul Khadim radiyallahu anhu te buqatal mubaarak ci njaarim ne ko mu teralal ko ganam gi muy shahru ramadan mubaarak Baay Faal yi amuñ lu dul lii te boo xoolee teewaayu sëriñ Soin bu faal mi moom sëriñ Modou Aminta Fall jàmbaar ji taxaw ni ci suñu wet loolu ku wëllëre ak mbokk gu dox ci diggante bi la maamam ji sëñ Ndam Saliou joxoon ko doomam ji soxna Aminta Fall mu ñu tuddee suñu waajuroo loolee lay ñëw di ko di ko di ko di yeesalaat bàyyi léppam ñëw ci ndogul maam Saliou Fall Daaru Xafoor yi sëriñ Falilou Fall di suñu buntu di suñu wasila ñu nekk fii ci kër maam Saliou Fall ci daaru xafoon rahim sëñ sëñ maam Saliou Fall jàmbaarul islaam mu mel ni sant nañ leen bu baax gis ngeen mbooloo mi gis ngeen cin li gis ngeen liggéey bi di fi jaroon na wax lu ci bëri mel na ni taarixu ndog yi sëriñ sëñ Bada wax na ko waaye dafa mënta ñàkk rek su ma toogee fii teewal fi sëriñ Falilou Fall moom sëñ Daam Abdourahmane ngeen ñëw ci wetam gi sama sunu rakk yi nekk nii ah sëñ Adama Fall euh, euh, sëñ Ablaye Yakhine moom sëñ Adama Fall moom maam Saliou sëñ Khadim Fall moom sëñ Mbaye Fall moom señ moom sëñ Modou Saliou ah sëñ Saliou sëñ sëñ euh, Sohaibou Fall moom sëñ Modou Aminta sëriñ Cheikh Fall moom sëñ Ndam Saliou sëriñ Bada moom sëñ Ndam Saliou lii rek la ñun daal ñoo ngi sant bu baax di xam ne fii ñu toog sëñ sëriñ Falilou lañ fi teewal ak i rakkam fas yéene noonu doon jëwriñam fas yéene ta jàpp ci liggéey bi di ñaan nag gaaw bii di ñëwaat li ñu mën yàlla nañu mën lu ko lu ko fooxe tañ fekke ko tal ko ànd ak wér ak ànd ko ak yépp yëpp ah, rek daanaka moo doon kàddu yi. di la sant ñaan ci mbas mi nag mbas mi. waaw mbas mi xam naa ne moom yaa ngi ma xanaa damay wax damay ñaan ci ci ci maam Saliou rek ak sëñ Assane mi ko fi teewal ak sëñ Fall mi ñu fi teewal ñun ak rakkam yi dañ daan wax sëñ Saliou Fall docteuru l'islam loolu amoon na sabab ndax ñëpp a xamoon taxawaayam ci paj taxawaayam ci ilmul jinn ak xeet yu demee noon mu mel ni ay rab nga xam ne fii ku fi mës a ñëw teg ci sab tànk wax nañ ne daanaka lala daloon day wér kon ci barke boobu ak yaakaar jooju te loolu tibbewu ko ci ndigalu Cheikh naa Cheikhul Khadim ci 1920 bi mu ko bi mu koy bi mu ko bi mu ko joxee ndigal mu sanc dëkk bi ndax dëkk bii di Daaru Xafoor maam Saliou da koo sanc ci ndigalu Sëñ Tuubaa booba melu doon nii booba raglu woon na booba li fi ne lépp ci liy faagaagal dafa bëri waaye lépp suñu borom nooyal ko ci kaw ndigal li ak barkeb sëriñ bi kon nag ñoo ngi ñaan noone mu naan seppee tawat yeeg jàngoro yi yàlla na ko fi jëlee te rafet nañ ñor ndax ba mu tàmbalee rek fii ci bayti bi kaamil yu ñu fiy jàng nga xam ne bu jot ñu jàng ko fi ak yeneen ñaan yu ñu fiy def dañ ciy fas mbas mi jóge mbaas mi moom li sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér nga xam ne moo waral lii ñuy liggéey wax moom lañ koy yóti lam wax rek jaam la muy Covid 19 maanaam jaam la lu yàlla bind la bind ñu moo tax mag ñi yàlla nañu leen yàlla fayal ñoom daawuñu daaw seen bi daawuñu ko teg ci bakkan seen pas-pas moo leen daan yóbbu fu ne bu ñu ragal jàngoro ji nañ ragal yàlla. nañ jëfee ndigalu suñu borom bi ndax jàngoro ji ma ngay ma ngay ma ngay jëfee ndigalam ndigalu boromam di sant ñëpp di gërëm yëpp Covid bi xam ngeen ne moom dafay jógee incha allah ku war a dem nag da ngay dem sans Covid sax nit ñi dañuy dem kullu nafsin zaa'iqatul mawt waaw na nañu fekk ci lu neex suñu borom rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen sant nag soxna Awa Touba jazakumullahu xayran